bon maa ngi tudd Mamadou Lamine Niang nekk secretaire général sous section dixième bu Thiès. waaw ndaje mi li ko war waral tey mooy dañu doon def euh, compte rendu congrès neuvième congrès wu SUTSAS bi amoon Dakar euh, le 2 ak le 3 novembre moom lañ doon nettali la fa xew militants yi nga xam ne ñoom ñoo ñu yebaloon ñu leen doon nettali la fa xew loolu moo ñu taxoon daje tey. bon la fa xewoon dañuy woowoon ci congrès ñu yaakaar ne congrès la ñu woo mais ba ñu demee la ñu gis ay caaxaan la. Euh, parce que lafa am ñu ngi ko tuddee ci tubaab ñu ngi ko tuddee mascarade leneen xew na fa waaye la fa xew ñun wax dëgg fa yàlla du congrès parce que congrès soo koy def dafa am ci base yoo koy def base yu leer candidat yëpp dañu war a nekk à égale dignité ñoom ñëpp dañu war a tolloo chance mais gis nañ ne candidat bi nga xam ne mooy candidat sortant bi ñuy foogoon ne moom du présenté candidature am a notre grande surprise mu ñëw présenté candidature am ba mu ñëwee moom moo nekkoon maître de cérémonie ba moom moo organiser congrès am ci nu ko neexee falaat boppam kon loolu la ñuy décrire ñun waa cees moo tax te ñuy ñuy def de presse tey waaw euh, la fa xewoon euh, ñëpp ñëpp nañ ko euh, dañu woo ñu am suñu candidat boo xam ne nii Thiès ñoo ko ngemboon ak Sénégal yëpp. ñu dem ba yegg ci biir saal ba ñoom ñu jaxase carte gi jël ay ay ay ay ay ay ay délégué yoo xamante ni warutoon ñoo waruñu woon a ñëw ñu dugal leen ci ci ci délégué Dakar yi loolu mooy fala la coow la commencé bi suñu secrétaire général bi nga xam ne moom lañu bëggoon mu falu jógee di jël kaddu pour décrire loolu euh, mayuñ ko kaddu après ci la ñu mbaala ci la secrétaire général sortant bi yëkkati ay loxoom ne moom gañe na. léegi ñun boo ko defee ñun ñu génn bu ñu génnee nag def nañ suñu point de presse wan ko Sénégal yëpp xam ne ne la fa xewoon du congrès ay caaxaan moo fa amoon ñun ay caaxaan lañ ko mën a lañ ko caaxaan léegi nag li ñuy ñaan mooy non waxuñ sax démission mais moom dafa war a organiser waat un congrès de rectification parce que ce qui s'est passé à Dakar du congrès ay caaxaan la waxaat naa ko dinaa ci ñëwaat ay caaxaan lañ d'accorduñ ci Thiès d'accorduñ ci région de Thiès d'accorduñ ci Sénégal d'accorduñ ci lañ koy ñaan nu mu gën a gaawee na organiser un congrès de rectification mais lancer un appel aussi aux autorités ñun reconnaître ñu Mballo Dia Thiam comme secrétaire général du secrétaire général national SITAS parce que dafa retraité. waaw pendant des années et des années mu ngi yor vingt cinq ans yor na ko sur sas kon dafa doy dafa doy demi siècle xaw la le quart ñu jox ko lépp nag wax dëgg fa yàlla wax ju du ñaaw nag parce que mag la suñu maam la. tey soo yoree say say say say doom wala nga yar say sët ba ñu màgg. ba man laa yor wax dëgg fi yàlla lii mooy sa li sa cër mooy danga nga war a jël sa sigaar ak sa kurus nga nga dem ñaanal leen. mais ñu ormal la jox la lu ne nag. moom defal na lu ne Siteu aussi defal na ko lu ne kon tey li woon dëgg tey mooy moom mu dem toog wan ñu gën ñoo xaalal yoon wi nekk suñu conseil bu ko defee ñu yor suñu Siteu parce que Siteu kat ñi fi nekk mën nañ ko yor ay xale yu ndaw ñu ngi fi seen loxo set nañu ay xale yu ndaw ñu ngi fi yu compétent ay xale yu ndaw ñu ngi fi yoo xamante ni mën nañ yor Siteu li ñu bëgg tey mooy na bàyyi suñu Siteu jox ñu Siteu parce que ñoo ko moom duñ ko duñu génn si dama ko wax naa on va pas sortir duñu génn dañuy toog biir Sicas nekk biir Sicas di xeex suñu ak ak suñu yelleef parce que moom moomu ko du patrimoine am du patrimoine kenn c'est un patrimoine national kon euh, maa ngi lancer un appel à tout le monde nañu gën a jàpp mais bu du ñu reconnaître ne Mballo Dia Thiam mooy secrétaire général Sicas waaw jamais nekk ko parce que waaw la mu def Dakar du congrès ay caaxaan la man man li ma foogoon foogoon naa ne euh, wax dëgg fa yàlla foogoon naa ne nit ku nit ko kii la nit ku mag nit ku mag la même bu la sa xel mayee yenn yi sa ngor na la ma a bañ a may yenn yi vingt cinq ans nga nekk ko ci benn ci benn ci benn ci benn secrétaire général ñu di buur di bumi loo boo ma sa joxoñ baaraam sax ñu topp la kon dem na ba benn moment boo xamante ni vraiment da nga war a taxaw xoolaat sa bopp ne kat man kat jox nañ ma lépp duma jël lépp jox nañ ko lépp warul jël lépp Thiès jox na ko lépp warul jël lépp nit ki nag bu fekkente ni toujours dañuy jël sa loxo wi cax ko cees taxaw na pour wiccax loxo Mballo Dia Thiam ci ci mboolu si tas. jamais dernier Mballo. Thiès et bëgg a jiital. ku ñu bëgg jiital mooy ñun amoon nañu candidat. mais candidat ba ñu dem ba ñu moom mu ngi fi. bu fekkee dëggal na boppam ba léegi mën nañ ko continuer di ko kii mais ay xale yu ndaw ñu ngi fi yoo xamante ni ñu ngi fi tey. yu set loxo yoo xamante ni mën na yor si tas mais suñu candidat ba aussi bi nga xamante ni ni nañ ko moom aussi mu ngi fi gaa moo ñu mag te yaakaar naa mate na ko mat na ko yor loxoom set na kenn mosu koo dégg ci ay caaxaan fu war a taxaw nit taxaw na fa lu mu war a defal ay nitam defal na leen ko kon vraiment gore la gàcce ngala nga moom te taxaw na dëggal boppam lu nit mosul ñeme lu nit mosul nangoo def moom taxaw dëggal boppam wane ne moom dafa opposé wu ci candidature Mballo Dia Thiam parce que candidature la boo xamante ni boo xamante ni ñun ak moom parce que mënoo liggéey ba bàyyi ba pare bëgg a ñoo xam ne dañu nekk en activité bu yàgg bi nga xamante ni grève nañ ko pendant huit mois bañ ba ñuy dagg suñu salaire kenn daggu salaire parce que moom ay salaire waaw liñ koy ñaan daal mooy na na raxas loxoom ci bool bi génne ko ci nu mu gën a gaawee bañ yàq suñu sisas parce que sisas kat suñu patrimoine la dañ ko bëgg ci suñu xol loolu moo nekkoon suñu déclaration de monsieur. Euh, pour faire un compte rendu du 9 du 9e congrès ordinaire organisé à Dakar le 2 et le trois le, le 3 novembre à l'UCAT 2 de Dakar. Ben, ce qui s'est passé à Dakar, ce n'est pas un congrès, c'était une mascarade. parce que euh, le candidat sortant ne devait pas être euh, ne devait pas présenter sa candidature parce que c'est un c'est un, un agent qui est en retraite depuis plus de cinq ans je pense donc c nous on n'attendait pas sa candidature non à notre grande surprise il s'est présenté euh, pour briguer les, les suffrages des, des, des, des militants du CESAS ce qui est anormal parce que nous n'avons plus les mêmes intérêts lui il ne travaille plus nous nous sommes en activité Donc celui qui travaille et celui qui n'est pas en activité n'ont plus les mêmes intérêts. Donc ce lui demande, ce qu'on lui demande, c'est d'organiser un, congrès de rectification. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est que du tété, ce n'est que du, folklore ce n'est qu'une mascarade. C'était une hold-up électorale. Donc, nous lançons un appel solennel à Mouché Mbalo qui a tout fait pour le CISAS et le CISAS aussi a tout fait pour lui. De d'organiser un congrès de rectification le plus rapidement possible. Je suis là à Thiès avec ma base qui dit non au, sacré, au secrétariat de Mbalo Tcham. Ils disent non à Mbalo. Dans, dans, les jours à venir, il y aura d'autres actions qu'on ne va pas divulguer au niveau, de la presse. Mais qui vivra verra. Ça, euh, c'est ça, ça, ça que, que, que, je voulais dire. Vraiment, je remercie tout le monde. Et vraiment, merci beaucoup.